الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بأعلم نعمتين نعمة الإيمان ونعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله به ونشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته إخوة الإيمان الخطبة في العلاقة بين المسلم والكافر mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu xéewale xéewale mag bi mu bokk ci xéewalu gëm xéewalu pas-pas ak xéewalu gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi seede ni moom yàlla moom amul kenn ku yeyoo jaamu jaamu ga di jariñ ñàkk koo jaamu di lor ku dul moom subhanahu wa taala mi jurul kenn kenn juru ko moom mi nekkul naw la ci kenn ñuy seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la sopteem la xaritam la tànneefam la yàlla nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam moom alayhi salaatu wasalaam di rafetal baba bis penc di taxaw ñuy dénk suñu mbokk mbokk yi di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak topp yàlla mooy def ay ndigalam moom yàlla comme nim ñu ko digalee waaye bàyyi ay tereem comme nim ñu ko tereem mbokk yi suñu xutba yi tey ñu ngi ko fas yéene amal ci relation bi nga xamante ni moom la yàlla digle ñu war koo amat jullit war koo am ak ki nga xamante ni du jullit seen alaaka lan la ndax yàlla moom subhanahu wa taala moom mi sàkk addunaam si sàkk jaamam yi ngir ñu jaamu ko moo teg ay xuduud ay limite ni limit yi na ngeen ko sàmm wa man yataadda xudud allah faqad zalama nafsa képp koo xamante ne dépassé nga frontière yi limit yi ma teg man yàlla kooku de tooñ na boppam mbokk yi jullit mooy ki nga xamante ni li war ci moom mooy mu gëm yàlla subhanahu wa taala gëm ko ci ay melokaanam gëm ko ci ay turam gëm ko ci mat gi mu mat moom yàlla yàlla mankiwul dara telewul dara gëmit ni yàlla mooy ki wàcce yonent yi alayhimu salaam ba pare digle nag ni liñ leen gëm ñoom ñëpp laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qaalu samicna wa atacna jullit mooy ki nga xamante ni dafa war a gëm ni yàlla moo wàcce ay kutubu samawiya ay téere yoo xamante ni moo ko wàcce ci ay yonentam ay tànneefam mu wàccee tawrat yonent yàlla Muusa alayhi salaam wàccee injil ci Isa ibnu Maryam wàccee zabuur ci yonent yàlla Daawud alayhi salaam wàccee alquranul karim ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ndayu téere yëpp kenn du atteet ci benn téere bu nekk ci kaw suuf ku dul ci alquranul karim jullit dafa war a gëm loolu jullit mooy ki nga xamante ne dafa war a gëm ni bis yii ñuy dund am na bis boo xamante ni bis boobu la ñuy wax yowmul axir buñ ci jógee dañuy dem yàlla atte jullit mooy ki nga xamante ni dafa war a gëm ni yàlla subhanahu wa taala am na ay mbindaa ko ni ñuy wax ay malayka laa yaakuluuna wala yashrabuuna wala yanaamuun bu ñu lekk bu ñu nelaw bu ñu naan ñoom lu leen yàlla digal la ñuy def lu mu leen tere bi ñu ko def ñoom yàlla subhanahu wa taala mu leen bindee ci leer jullit dafa war a gëm lii di dogal bu neex ba ak bu naqari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéemu naa ci jullit ndaxte moom mbiram yépp ay yiw la moom de bu yàlla wàccee ci moom xéewal mu sant yàlla dolli waaye bu yàlla wàccee ci moom it nag mu nangu ko yàlla dolli mu ni kon yéemu naa si yëm biirum jullit mbokk yi lii ñu wax ci jullit contraire am ku koy def kooku la ñuy wax yéefar mooy ku wet al kufru li ñuy wax kéefar mooy koo xamante ni dafa weddi loo xamante ni dafa waroon ci moom mu gëm ko kooku kaafir lañ koy wax ñoom la yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran mu ni falamma jaahum ma arafu bihi kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bihi fa laanatu llahi ala alkafirin yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na ñii nga xamante ne dañoo wedd ñoom ba mu leen dikkalee mu leer nañ ci lu ñu war a gëm ci man yàlla ci lu ñu war a gëm ci sama yonent dañ koo wedd yàlla mu ne nag fa laanatullahi ala alkafirin ñooñu nga xam dañoo wedd li waroon ñu gëm ko ñooñu mbugalum yàlla rëbbum yàlla mu ngi ci ñoom wala iyaadu billah ñooñu weddi daf si am ñoo xamante ni wax ji ñu wax yàlla da ko weddi ci alquran mu ni laqad kafara weddi na kéeféeru na alladina ñi nga xamante ni qaalu inna allaha thalithun thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladina kafaru minhum adabun alim yàlla mu ni weddi na ñi nga xamante ni ñoom seen pas-pas mooy ni yàlla de doom gi la ak yaay ji ak ki nga xamante ne mooy papa ji la xawla wala quwwata illa billah yàlla mu ne ñooñ de weddi nañ ndax wa ma min ilahin illa ilahun wahid amul benn yàlla bu dul kenn kese al fardu samad moom mi yàlla wax moom ci boppam mi wax ni baada audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa moom allahu ahadun kenn la allahu moom yàlla assamadu mooy jubluwaay bi lam yalid jurul kenn walam yuwlad kenn jur ko walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla du naw la ci kenn yàlla ne nag ñi nga xamante ne ñoo gëm ni yàlla ñett la ñoom ne yàlla mu ne ëllëg dina leen musal dina leen mosal mbugal goo xamante ne mbugal gu tal la yàlla na si yàlla musal mbokk yi ñooñu ba tey nga xamante ne ñooñu weddi ñoom de wax bi ñu wax muy pas-pas bu ñu gëm pas-pas la boo xamante ni nee na amul tooñ bu gën a rëy ci kaw suuf boo xamante ni doomu aadama moom koy def bu gën a rëy boobu tooñ ndax pas-pas boobu mooy dañoo tuumaal yàlla subhaanahu wa taala ci am doom subhaanallah mooy ni yàlla dafa jaxasoo ba pare am doom lii mooy pas-pas mbokk yi yàlla mu ngi wax ci alquran nag mu ni wa qaalu ittaxada arrahmanu walada ñoom dañu ngi tuumaal suñu boroom seen boroom ñu am yërmande lool ndax su ko neexoon bañ ko waxee fa la àdduna bi dem ci ñoom waaye mooy arrahman lañ ko tuumaal mooy yàlla dafa am doom subhanallah mu ni laqad jitum shay'an idda indi nañ tooñ ak tuumal bu rëy ci seen borom subhanahu wa taala tooñ boo xamante ni takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ard wa taxirru ljibaalu hadda an daawu lirrahmani walada nee na kàddu googu mu jibee yàlla mu ne xaw tuut asamaan si màbb ngir rëy gi nga xamante ne asamaan si mu ngi dégg ñu koy tuumaal yàlla subhanahu wa taala mu ni xaw tuut di ko suuf déggee xar xaw tuut di ko montagne yi déggee fondre mokk rumbux ndax wax ji ni mu rëyee ci allahu subhanahu wa taala mbokk yi ñi weddi am na ñoo xamante ni seen pas-pas loolu la am ñoo xamante ni nag seen pas-pas dañoo gëmul sax yàlla bay gëm ay yonent ak gëm dara ñooñu la ñuy wax ay athée wala ay animiste gëmuñu dara moo tax yonent saa sallam wax ci xadis mu ni ci xadis abi hurayra radiallahu anhu walladi nafsu muhammadin bi yadi la yasmau bi ahadun min hadihi al umma la yahudiyun wala nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ni dinna ci nga xamante ne sama bakkan bi mi ngi ci ay loxo mooy yàlla subhanahu wa taala nee na mu ni ñii nga xamante ni ñoom la ñuy wax yahud ak nasaraan amul kenn koo xamante ni dégg na lii ma yàlla wax ma jottali ko muy alquranam bii mu bañ koo gëm lu dul ni ëllëg yawmal qiyamati dafay ñëw yàlla jël ko tàbbal ko biir safara yàlla ci yàlla musal aqul ma sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقت يالا suñu taxawaay ñaareel mooy ginnaaw bi ñu définir ñu xamle lan mooy jullit dëggan dëggantaan kan mooy jullit xam le it pas-pasu ñi nga xamante ni ñooy ñi nekkul jullit ak li yàlla wax ci ñoom te yàlla moo dogal ne dañoo war a dëkk war a nekk war di partager war di jaxasoo ana yan xuduud nag la yàlla teg yan limite la teg yàlla teg ni lii moom mënu ngeen ci ànd waaye yii moom waru leen ci ànd kii di asmaawu bint abi bakrin radiallahu anha dafa ñëwoon way juram bokkoon ci ahlul kitaab gëmul yàlla indil ko kado bëgg koo jox te moom asmaa'u jullit la waaye asmaa'u ci jullit li mu war a seexloo mu ni lii di ci loxo yi muy tukkee kii di gëmul yàlla donte sama wéy mu delluwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaaral ko mbir mi ni ko sama yaay dafa ñëw ngir jox ma kado bi te moom gëmul yàlla ana lan laa war a jëflante ak moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni tekk ba si yàgg yàlla wàccee aaya yàlla ni laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibu almuqsitin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaaral asmaa'u ni ko yàlla ne nee na terewu leen ñu jullit ñi ci ñuy rafetal ci ñi nga xamante ni amul noonoo bu dox suñu biir yéenewuñu lu bon bay egg si di ñu rey mu ni ngay rafetal di jëmale ci ñoom kon ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoom warul ci ab jullit muy jaxasoo ñoom ci lenn mooy yéefar bi nga xamante ni ak kéefaram dafa wëlbatiku waat yéen a jullit bi safaan yàlla mu ne bokk sëpp leen dara sa noonu la ndax noonu yàlla la ak noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo génne woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waaye ñi nga xamante ni nag seenu kéefar ñoom dañ koo ànd ak dañ koo gëm toog ak moom yéene wuñu kenn kenn kenn safaat yàlla mu ni ñooñu mën ngaa rafetal jëmale ci ñoom ci la asmaa wu toogal nag mu kado bi jóge ci yaayam mbokk yi boo delluwaatee ba tey ci histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy bundu xatal jullit ñi ci biir makka ba muy digal jullit ñi pour ñu dem rawale seen pas-pas fan la leen yabaloon ca xabas Éthiopie la leen yabal ne leen am na benn buur boo xamante ni buur bu mandu la bu woon jullit de masiixi la ñu koy wax najaasi bañ fa demee buur boobu mandu gu nekk ci ñoom moo tax mu mu accueillir leen dalal leen donte am na ay waa ba jiiba yu ñëwoon ngir jaxase xelam ci ñii pas-pas bi ñu indi na ko kii de dañoo weddi sax ni Aysa wax ci ay wax yu bari najaasi ne leen ñii li ñu wax loo leen ci xam yéen ñu indil ko li yàlla wax ci sayyidatuna Maryam sa nam selle ak ni Aysa gane àdduna lépp mu nekk ay firnde yu alquranul karim indi tegal ko suñu kanam loolu lañ ci leen wax najaasi ne leen dund leen nu mu leen neexee fii ci biir xabasa kenn du leen laa najaasi moom bokk yi ci islaam la mujjee faatu ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu déggee ne najaasi faatu yi nekkul jullit da koo jullee salaatul ghaib mooy jullee néew boo xamante ne nekku fi yonente saa sallam jiitu saxaaba yi topp ci ginnaaw mu jullee najaasi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu it la ab jullit war a taxawee ci koo xamante ni du ab jullit mu koy ñaanal ñaan gan da ngay delluwaat rek ci histoire loo gis rek ci diin am na tegtal bu leer boo xam ne boo demee ci alquran di nga ko fekk wala nga dem ci wax yonente saa salaam nga fekk ko fa loolu mooy sukkandiku waaye jullit yonente bi salaa salaam bi islam bi ni tar lool dafa tàllal loxoom ni allahuma ayyid al islam bi ahadi omarain yow yàlla yàlla nga dooleeg islam bi ci ñaari omar yi boobu abu jahlin la woon ak omar ibnul xattaab omar nekk loon jullit wante yonente bi salaa sallam daa ñaanoon te ñaan nga ci Omar ibn Xattaab la dal mu ñëw dugg ci biir islam bokk la nag mbokk yi koo xamante ni dafa faatu ci kéefar kooku amul rafetal bu dox sa diggante ak moom nga koy ñaanal yàlla njëggal déedéet wala tusalli ala ahadin minhum maata abada yàlla dafa ñu tënk ni ñoom di képp ku ci dee ci boobu pas-pas amatoo droit di fekk fa ñuy waajale seen koor limite bi foofu la wala nga koy ñaanal yàlla ne ko yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral aljana ak a bari ay njumte yoo xam te mi ngi am sax léegi ñu ne diw de dafa faatu mu nekkoon boo xam ne bonne relation moo nekkoon seen diggante amul na benn fitna mu tax seen diggante waaye ba tey egg nga war kaa taxaw di ko ñaanal yàlla di jéggal ak yërmande ndax yàlla nee na innahum kafaru ñoom dañoo weddi woon ñooñu waroo dem ci seen xabru di fekke seen janaasa waroo taxaw di fekk fuñ leen jullee te jullee mooy ñaanal ab néew waaye bu ñuy dund am nga ak ñoom ngay deflante ak ñoom ci ay cadeau lu dul ni cadeau bi ngay jox bu mu ànd relation mu ci feet boo xam ne dañ koy feete muy feetu pas-pas bu mel ni Noël mbokk yi foofu du feetu ab jullit feetu pas-pas la boo xamante ne lañ gëm mooy yàlla dafa am doom la xawla wala quwwata illa billah kooku amul ab jullit bu war a egg ci rafetal sa diggante ak ñoom ba ci ndokkeelante ak ñoom bokk leen sax liñ naan deret wante seen pas-pas du benn waroo ko ndokkale waroo jëmmal lenn loo xamante ni lu jëm ci wàllum pas-pas la ci kado wala dara luy jëmmal feet googu noonu loo ci def rek yàlla nee na fa innahu min jàppal ne yow ci ñoom nga bokk wala xawla wala quwwata illa billah mbokk yi naka noonu it la ba tey alquran di ñu waxee limite bi nga xamante ni moo dox suñu diggante ak ñi nga xamante ni ñoom duñu ay jullit mu ni yellul yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bilmawadda wa qad kafaru bima jaakum min alxaq subhanallah mbokk yàlla wax na lépp ci nu ñu war a jëflante wala nu ñu dund dundee ci kaw suuf ngir ëllëg buñ demee mu teral ñu fayee ñu aljannatul firdaws yàlla ñu ci yàlla defal yàlla mu ni ay yéen ñi gëm bu leen jël mukk di jàpp ñi nga xamante ni duñu ay jullit ngeen leen di def seen xaritu xol ñoom mën nañoo nekk ay xaritu xol ci seen biir waaye yéen seen xaritu xol jullit ñi la war a nekk muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum yàlla mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ni ko gëmoon mooy saxaaba yi mooy jullit ñi tey ñoom de dañoo amoon charisme ci kanamu yéefar yi hayba ba seen doxin seen waxin seen ak solin amul lenn looy xool di ko méngale ak ñeneen ñi nga xam te ñoo nekkoon ahlul kitaab ba tax moo doxoon limite buñ leen doon am luñ leen di wegee waaye seen biir comme ay muro faaw jaxasoo ku nekk wàcce sa bopp amul kii mooy amiru muminin Omar ibnu Xataab da ngaa ñëw fekk mu tëdd boo ñëwee doo xam ndax kii mooy amiru muminin ñoom nekk ci biir islam wante laata amul dugg ci islam mbokk yi bi mu ñëwee mu ne day gëm ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ne tom tom ñu ne kookan la mu ne Omar dañoo daw ki nekkoon ci porte bi dafa daw daal ne Omar Omar Omar ngir Omar ni mu tare woon ni mu amee woon ak lu muy représenté yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ubbil leen ko su fekkente ni jàmm rek la fi ut jàmm jànk ba doy sa kanam bu fekkente ni leneen la fi indi lu dul jàmm ñu jaama jaamarloo ak moom jullit moo warul la am ak lu muy wàññee boppam di yëkkati keneen ku dul jullit ci kanamam du fi alal du ci melokaan du ci dara loo xamante ne war nga koo fanwee ku dul jullit nga koy def sa xarit ko xol yàlla mu ne képp koo xamante ne def nga loolu noonu kooku de yow bokk nga ci ñoom moom leen saa salaam wax ci xadis ni man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xamante ni mu ngi nuru nurul ab xeet kooku jàppal ne yow ci ñoom nga bokk ndaxte mbokk yi ki nga jàpp muy idol tudd ab jullit nga koy nga koy jéem a roy ci li muy solo ba xool leen suñu jabar gi léegi seen wati fi watu Cristiano Ronaldo watu benn star ñoo xam ne duñu jullit yow nga ko ci bàyyi noonu muy dem topp suy dem ba koy def xaritu xolam bu la fi fekk yow faatu nga ndax yàlla lay bàyyi nu yowmal qiyaamati ne ah yow sa wàll wéyoon na fa doom moom déedéet masuul la kullukum raay wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ci nekk responsable nga te yàlla dina la laaj lam la dénkoon ëllëg te lam ciy jiitu mooy sa njaboot bi nga xamante ni moom la ko dénkoon mbokk yi ba tey ci alaaqa relation bi dox ci diggante jullit ak ku dul jullit ñun jullit ni yàlla dogal na ni mën nañoo fekk koo xamante ni du jullit moo xam yahud wala nasaraan ñu dem takk ci ñoom sax wante kii di animiste daganul ci ab jullit muy dem di ko takk ji waxuma la takk ko mais lu mu rendi sax waroo ko lekk waaye kii nga xamante ni yahuda wala nasaraan lu mu rendi sax mën nga ko lekk mën nga takk ci seeni soxna waaye ñoom mën ñoo takk ñoom ci suñuy soxna xoola fi jamono toll tey nga naan kii tëgg la kii géwal la kii nangam dama ko may sama doom ñu indal la benn tubaab boo xam ne xamoo fu mu jógee moom daal dafa am coxeel ci sa doom rek mooy da ko bëgg a takk xoolatoo sax fas-fasam lan ngay xool alal bi ñu daal ne ah nañ ko tuubal tuub boo xamante ni càmbaroo yu bëree bëri bëri yu bëri bëri bëri càmbaroo ko tey ngaa waroon a jël sa temps tuuti sax xool ba xam yow bu dee yow yow yow yaay way jur pour jigéen bi yàlla ay ay responsabilité sa kaw la ko gàll yóbbu ko nga xarfal ko bu dee xarfalul bu dee tuub gi dëgg na yóbbu ko foofu rek su dëggoo ba romb étape boobu am ni kii pastos bi muy wax mi ngi ci moom nga soog a dem ànd ak moom ci yeneen maraaxil yeneen étape soog ko may sa doon loolu ku am pas-pas ak xam-xam bu sell moo koy def mais ñun ñi nga xamante ni àdduna lu mu jëlee téye ko nii ba lépp loo xamante ni ñoom ñu ngi koy feete di ko amal ci ak feet ñoo leen ko dàq def ñoo leen ko dàq def mbokk yi ci yàlla bokk na ba tey ci relation bi nga xamante ni xuduut bi yàlla teg ci diggante kuy jullit ak ku dul jullit mooy ni ku dul jullit ak lu ngeen bokk bu ngeen deewee du ngeen donnante du ngeen donnante xoolal kanaan bi yonent yàlla nuux ne yàlla yow yàlla maa ngi lay tinu ci sama doom ji ndax doom ji dafa weddi ni dafa yéeg ci kaw montagne bii ndax montagne bi ndox mi lu mu bari bari bari lu egg ci montagne bi yàlla ba nga koy teqale li nga xam te ne mooy li dagg seen askan ñoom ñaar mooy pas-pas la ko dàqale innahu laysa min ahlika te pourtant mooy bàyyam kon mbokk yi lii di jullit dafa war a xam dëggantaan lan mooy li nga xamante ne moom mooy li mu moom lan la bokk mu jël ko li nga xamante ne yoonam nekku ci ñu xamal ko ko ba mu leer nañ mu maandu ci mu maandu ci bañ cee bokk ngir ëllëg bu yàlla di wàccee lenn ci meram yow yàlla mën laa musal ëllëg mu boole ñi nga xamante ne mooy ñi nga gërëm bokk yàlla ñu yàlla won dëgg ba nu gis ko mu saxal ñu ci jaarale ñu ci yàlla ñu yàlla won lii di neen lii di safaan ak ni mu tasaaroo ci àdduna ba nu gis ko yàlla moytuloo ñu ko ba duñ fa jaar rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصديق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله